Minina tora, itora, tora, tora. si ikato. Commerçants, industriels, pour augmenter la visibilité de votre entreprise, affichez-vous sur siteadakar.com. Pour vos clips publicitaires, votre site internet, vos films d'entreprise, contactez LS de sur cetadakar.com, le magazine tout en vidéo qui parle aux Sénégalais partout dans le monde. si mama Sunday, my mama crying now. What you need is just some peace. die your pen and go on the street. Welcome. Big love, thanks and praise to the Emperor. by Baifal Dontali Bejebuluchimam Sharafal, Mr. Jean Jara from Italy. dëkk fii Sénégal màggee Sénégal léegi maa ngi en Italie et je produis de la dance music club music. Africa oh ayama ma ma ma. Africa, oh Ayama. li musique en fait réaction naturelle bo xamné day nekk si nit ku à l'extérieur di êtes en face ay réalités diverses yow da ngay am ben sensation bu nek si biir yow bo xam motiver ou dans le sport wala dans la musique wala dans l'art man nak sama cas c'est dans la musique je l'avais dans le sang ma au début j'ai commencé di def tribal music tribal music par la suite pendant des années bi ma tribal music am la collaboration avec des DJ étrangers internationaux. Stylus Rob Papete avec Molto Record si vous la commencer di def pop music ak club music c'est moi, level international bah, au début c'était pas nekkuloon lu yomb parce que dafa c'était un peu spontané nekkoon tuuti freestyle et tout ça mais nous am maison de disque et tout Légui je suis vraiment encadré Amna maison de disque yu bari, parce que je signé mon contrat artistique avec une ben maison de disque une maison de disques. yu bëri te alhamdulilah collaborateurs étrangers à Londres en Amérique puis en Europe principalement. avant may dugg si musique bi dugg naa si milieu artistique bi comme ni ma waxee rek il faut nga gagner arme yi nga am pour xol noy réagir joxe monde bi man bima en Italie dans je me rappelle les premiers moments je ngi DJ dans les clubs maa ngi des jàngale je def ay cours de danse hip hop breakdance et tout ça là petit à petit ngay gis ni affaire yi amna importance amna ñam bu ci mëna a génn yow si ngay génne full ci yow dem nak dépenser li war dem jàngi peut être temps metti métti parce que du ma tal la Sénégal xaalis bi ma am dama koy invest ci cour et café demee noonu mais ça porte son fruit dafa gum naa album complet mais nak depuis boobu je ne produis que des singles des hit singles chaque année au moins dina génne ci année bi ay deux singles hit yo xamné dañuy pour l'instant Sénégal xamuma xamaguñ ma te dama gis ni war naa am wàll si marché sénégalais bi tax en tant que gens ma ñëw pour présenter sama produit je sais que c'est un produit compétitif te mën na bokk si marché bi fi mu nekk nii gars xamaguñ ma mais je pense que du yàgg quoi dinañ ma xam quoi parce que musique bi may def good vibes la ku de dégg dina la intéresse quoi bi ma nekkee xale sama rêve bi gënoon mag mooy su ma ma nekk ben architecte je suis may avocat ma à l'université UCAD de Dakar don don def cours de droit j'ai fait un an de droit après ma bail à l'étranger comme tout étranger comme tout sénégalais bo démé à l'extérieur yow da ngay am vocation quoi da ngay bëgg a tekki représenter dara man sama cas dem Italie nek contexte différent à contexte sénégalais boo xam ne si langue si culture si habitude si yépp c'était divers ma war a génnee li nga xamné ne la yoré sama biir te mu nekk loo xam maa ko moomal sama bopp proposé ko tubaab yi ñu accepté ko mu permettre ma manit, ma dugg si marché européen bi être digne quoi nek nit bi ma quoi sénégalais bo gisee ni yaa ngi def ben produit mu neex nit ñi da ngay orgueilleux te man dama nek nit bo xamné bima bi déjà Acon, doon def ay production au niveau international neex ñep lolu orgueil orgueil la won ci man bama né manit man mën naa def affaire yu demee quoi tu vois li tax nak ma tan di def club music dama xol ni la génération actuelle c'est vrai que ñun suñu influence hip hop le one et tout ça et on est destiné toujours avec influence de mais li nous moi pop music bi dance music bi moo ngi dox so le cas de Bob Sinclair de David Guetta des nouveaux talents comme américains et Pitbull Akon Neo et j'en passe L'autre club music moi li nga xamné so vraiment percer au niveau international moi dem quoi en 2005 laa sur mon premier album euh, en Italie avec un groupe bu donne Ethno Orchestra tribal music la woon mu am benn fameux sound bu gars yi tuddee Tora Tora si foofu nag lay remix yi juddoo ak contact yi les DJ internationaux ñu braqué ma nag ma def club music. Sénégal dama ñëw ressourcé wu dama ñëw séti samay wajur samay mbokk samay xarit sëgam fii laa juddoo fii laa màggee il faut que may ñëw di jël li mom ba paré nak am motivation bu mak moy ma ñëw nak indi produit yi wan ko tammi sama mbokk sénégalais parce que il est temps il est grand temps tey dafa wara nek quoi parlant d'ambition bu gëna ouf bu gëna a tipsé day metti léegi léegi ma wax ko mais xamna ni dal amna de grosse grosse grosse ni ambition ci musique bi je veux percer xam nga mënuma cibler kenn ne ni ki la bëgg mel parce que nit ñi dañu bëri té wuté mais bëgg n'a laal le sommet gaay xam ma ràññee ma en plus de lolu tamit je veux beaucoup tamit consacrer beaucoup de temps liggéey ci humanitaire bi ci humanisme bi parce que su nekkee en Europe et sous la pauvreté ak affaire yenn yi en Afrique da lay toucher Actuellement, je suis discrètement mais c'est ça mon projet principal. pour être très sincère faire business man je viens presque très souvent au Sénégal au moins un chaque année mais on fait mais à 15 jours la fi Rennes la précisément dans le cadre de la musique pour tamit exposer les mais à dire vrai Sénégal a na loo choses. ne beneen mais si lolo aussi amna vraiment yo xamné changer changé wul dafa gëna yes ngeen bal ma si sama wax quoi parce que suñu dëkk bi manqué na tuuti organisation bo xamné c'est à déplorer nit ñi bëggoon nañu instant bi si 2012 bi ñu changer parce que dañu nekk dëkk bo xamné ne benn dëkk dàqu ñu même les les européens les américains ils le savent mais lu ñun mënu ñu comprendre lolu ba régler wat suñu organisation dem kanam affaire bi du affaire de politique du affaire de dara mais affaire de conscience la conscience sénégalaise te ñun ñëpp si bokk yema ku nekk euh, am nga sa part bo wara jouer ci biir li motivé motiver nit dafa bari bo xolé tout récemment ci cadre lamb bi ya nga gis tous les jeunes dañu bëgg nekk bërekat parce que dañuy gis ni lamb bi am na c'est la même chose nak dans la musique bi ñu demee ba gis ni musique bi si le monde international bi si sur le monde bi fay make money nit ci dañ ci def xaalis ñëpp dañ ci bëgg dugg mais y a un problème moy musique waroo ñëw tepp rek jël ko mu doon ben affaire ni kaf-kaf musique dafa wara nek lu sérieux da nga ci def sa rigueur def si sa conscience def si sa xel parce que produit bi génn ci xol dafa wara dugg ci xol kon boo ko nu mu war a amul sens loolu tax nak dans si ma cas et puis comme cas yenen mën cité fi au Sénégal il y a un exemple ko xamné ne estimé naa ko trop amadou c'est un des gars yo xamné il mo ngi jang musique mo ngi jang si programme yi demee non parce que légui le monde est virtuel boy yi ñoo ngi avancé la technologie nekkatul seulement guitare wala affaire demee noonu loolu talent la mais légui il faut que ngay jang logiciel yi xam les programmes il y a pas mal de programmes boy tobab yi boy africains ils ont beaucoup de talent mais dañu jàngagul lu bëri rek mais su jàngee ñun ñoo mën gaayal parce que ñoo leen ëpp ñoo leen ëpp feeling maa ngi ñaan sénégalais yi sénégalais yi di ñaan ñëpp nañu nekk benn nañu unite dëkk bi ñun ñoo ko moom xam nga gars yi day metti mais fépp la mais il faut ñu delloo suñu xel nekk benn organiser wu nangu ku ñu jiite nangu jàppale ko d'accord erreur nag day am si yëpp parti mais suñu nangoo nekk benn rek dina dem incha allah peace love ininatora itora tora tora simama simawo ikatora tora mininatora itora tora tora simama simawo ikatora tora ayo ayo nene tora mininatora tora e ayo nene mininatora itora tora tora, tora. Simama Simawo Ikatora Tora Jikam peace and love welcome Set Adaka yaa ko yor big